Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf fitna ji ci campagne gi moom la yéene yu bëri xëyee tey réew mi quotidien du ñu yëgal ni gannaaw li xaw ca ndargee ca bëri na ay déclaration yi nga xamante ne boo moytul ci yokk violence bi la jëm moo tax ci biir yenekaay bi jawrin ju ñu dénk kaaraange bi réew mi di général Jean Baptiste ma ngay artu jëmale ko ci ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy tëkkoonte jamono ji te mu des rek ay fanu néew ngir campagne bi jeex le quotidien yéene kaay dikk ci mise en garde yooye nga xamante ne général Jean Baptiste Tine na ko yëkkati tere bépp attaque bi nga xamante ne mën nañ ko jëmale ci ay caravane kàddu yi mu yëkkati gannaaw li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ni ki démb ca diwaanub Ndar Géej L'As quotidien nee ñu kon li xew démb ca Saint-Louis day wane ni kon yëf ma ngay ëpp loxo jamono ji loolee mel ni lu jaaxal suñu naataango yu 24 heures yéene kaay bi sax di samp laaj a kan moo war a li nga xamante moom mooy fitna gi ji ci marché sor ca Saint-Louis dañu leen a ay nit yu yor seen gannaay ñoo ko def te ñu njort ni dañoo bokk ci takku wàllu wala sàmm sa kàddu attaque boobee xew démb ca Ndar gee ci tax na ba ci enquête Ousmane Sonko di wane naqaram ba noppi mel ni ku fas yéene dekkilaat li nga xamante ne moom mooy gatsa gatsa gi moom njiital Pastef ci yéenekaay bi mel ni ku ci jàmbaaraam tuuma Barthélémy Diaz ba noppi woolu ay militantam ci defante dëgg ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bi gannaaw ndakaaru Koungheul ak Ndar Géej te ba léegi état jëlu ci benn responsabilité am Sonko mi mer ba fut ci la témoin yéene kay fas yéene dekkilaat gatsa gatsa gi muy ŋàññi nag taxawaayub état bi mu jàpp ni kon warul wane faiblesse ba noppi nee na tey ji ci ndakaaru la fas yéene wane boppam rawatina ko ñu Barthélemy Diaz ci boppam Barthélemy Diaz daal yor-yor bi mu ngi xamal ni démb li ko Sonko guuxaloon yépp daal na koy yàbbi moom te delis Pastef ne fukki at a ngi nii doomu Jean bi di wane fitna rek ci géewu politique gi ba noppi yokk ci ni moom ci wàllu boppam moo amuta yar te léegi dootuñu nangu benn yoon ñuy attaqué seeni militant kàddu yi moo tax les échos gis ni Ousmane Sonko ci boppam dafa déclaré guerre ki nga xamante ne moom mooy Barthélémy Diaz ba noppi fas yéene soobuwaat ci gatsa gatsa gi ndax li muy ñaawlu moom premier ministre bokk na ci ñetti attaques yi nga xamante ne dund nañ ko te ba léegi amul kenn ku ñu ci teg loxo ci biir yéenekaay bi bëri na ci ay responsable Pastef yi nga xamante ne nee ñu dootul sax defati campagne artu yi ak xeetu dànqaafu yi ñu dégg ni ki démb tax na ba vox populi di njort ni fi ñu jëm daal waru tabaax ndax boo moyul deret dana turu l'observateur mel ni ku koy dëggal ne kon li ñu gis ni ki démb kàddu yi nga xamante ne Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñu ngi koy yëkkati namm sax fekki Barthélemy Dias ba ci koñom tax na ba yéenekaay bi gis ni daal liy xeeñ daal boo moytul ci kaawo lay yóbbu réew mi Walf Quotidien di ko ci feelu ne kon bi nga xamante ne moom la ñu jàpp ni moom mooy xeex capital bi ci virage bi nga xamante ne dina bëri lool ay risque ci la ñu jëm ndax kàddu yi nga xamante ne Ousmane Sonko ki ñoñom daal dinañ koy yëkkati ni ki démb ca jamono jooje Barthélémy Dias ci yéenekaay bi gis ni waa Pastef ñoom ñoo bëgg indi fitna ngir kon bañ li nga xamante ne moom mooy cohabitation bi war a am ci assemblée nationale li am ba am fan yi mujj ci campagne bi la tribune yéenekaay li mu gis mooy caravane yu bëri yi nga xamante ne war nañu daje ci ndakaaru moo tax suñu naataangoy mel ni ñuy nga xamante ne ci capital bi ndaxam dëgg dina jib ci faatuk Mamadou Moustapha Ba l'observateur xëy na tey ci dossier ki nga xamante ne moo fi nekkoon joriñ ji ñu dénk wàllub finance yéenekaay bi di xam ne ni kon dikk door na ni ki démb li nga xamante ne moom mooy audition yi ak soxnaam bi di Yacine Sall Ba naka noone Babou Diédhiou yéenekaay bi yokk ci ni enquête bi dafa mel ni dañu ko tëj ràpp bëgguñu dara senn suñu naataangooy njort ni bu ñu co noppee luñ ciy gis boo moytul loxo dina dar gémmiñ loxo moom tàmbale na dar gémmiñ ci journée libération ci la xëyaat tay Libé di xam ne ni Mamina Daffé ak Ibrahima Cissé mujj nañ leen a yóbbu kaso ba noppi information judiciaire ubbi nañ ko ngir escroquerie ci li nga xamante ne moom mooy alalu askan wi faux et usage de faux naka noone blanchiment de capitaux Sud Quotidien moom xëy tey ci lëkkaloo bi ci wàllum napp gi diggante Sénégal ak Union européenne yéeni kaay bi njort ni ci lu ñu jëm daal mooy soppi doxalin boo moytul sax dakkal lëkkaloo bi a napp gi war a sekk ndajeek taskatu xibaar yi ngir àddu ci ci fan yi ñu dégmal fan yi nga xamante ne ñu ngi koy amal ndaje di some sommet OCI jëm ci crise bi ñu nemmeeku ci Israël ak Palestine réew mi quotidien dikk nag ñun tey ci taxawaay bi nga xamante ne Bassirou Diomaye Faye daal ko ci am mu mel ni njiitu réew mi artu na jëmale ko rawatina ci mbootaayu xeet yi mu jàpp ni kon seen taxawaay ngir dakkal boobule fitna ca Palestine ba ca Liban des na moo tax ci biir Le Soleil njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye tamit ŋàññi na ci taxawaayub ONU ci situation bi nga xamante ne ñu ngi koy gis ca Palestine ba ca réewub Liban loole la xam ne ni ki démb ci sommet extraordinaire bi nga xamante ne ca Riyad la nu koy amal moom njiitu réew mu Sénégal gis ni taxawaayu mbootaayu xeet yi daal bu ci génnul boo moyul crédibilité am ci boppam lay ñàkk Ismaël Jacobs ñàkk teew la war a def ci jongante yi nga xamante ne équipe bu Sénégal moom lay dëgmal digganteem ak Burkina Faso ak Burundi li ko waral réew mi sport di ñu xamal ni moom défenseur bu Galatasaray bi dafa amee gaañu gaañu ba bi nga xamante ne moom la gayndey door ni ki